嗯。 am bikum benn ñaar ñett ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan fanweer ak juróom rëcc ca musiba mbàbba kumba bi am démb ci ndox mi ca île des Madeleines Dakar l'observateur moo ñu ko xamal yéene kaay bi ne xab gaal moo këpp gannaaw taw ak ngelaw wu leen jot ca biir ndox ma ca île des Madeleines fii ci Dakar ñeent ñàkk ca seen bakkan fanweer ak juróom ñoom rëcc nañu mucc ña nga xamante ne ñoo rëcc bokk na ca juróom benn tubaab yoo xam ne France lañ dëkk ak ñaar ñu dëkk almaañ ak ñaar ñu dëkk dëkk Suède ak kenn ku dëkk bi Bissau démb na guddi gi yëpp ca île mat leen la nu fanaan jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu napp gi kilifa yu bëri ci gouvernement bi dem nañu fa ngir taxawu leen vox populi na li xam démb kay fa garaaw tiis wu rëy la ñaar fukki ak ñeent nag ci ay senegale bokk nañu ci ña rëcc ca ndox ma maanaam faatu wuñu ñeneen ñu faatu nag ci ab accident ci kaw tali bi laa séene kaay moo ñu ko xamal ayaw seetal tali bi oto yi waneeti nañ seen mënin bakkan yi rototi nañu deret ja tuurooti na ñaar fukki doomu aadama ak juróom jëlee nañu gañu gañu ci accident bi ni mel turbine yene kay nako ñett doomu aadama yi faatu ci accident bi ma nga amé ci route nationale ba mbaaw hab njaga njaay dal mo fa def musiba naru lay lanen luy ray senegal moy dënnu bi taw bi l'évidence yene kay kaay ne xam ñaari doomu aadama dënnu wi daanu na sen kaw ñu faatu ñak sen bakkan allah yef ya nga amé ci diwanu tamba kunda faneen fu hay bakkan di rot ndax musiba moy kasso yi ci senegal ay yow seetal direct info moo ñu xamal ne ginaaw ña fay dee ci yorinu bon nekkinu métti bëri guñ bëri ca néeg ya ba tax yéene kaay bi di laaj ne borom robb yu ñuul yi magistrat yeeg avocat yi mbaadu yee yaay ay complice lañu ñu doxalinu bon wi ni mel ci wàllu yoon rawatina ñi ñu teg loxo keneen ku ñu teg loxo ndax fa yàqate fa rajaxe fa tojate stade bu mbàkke ba ñuy futbalee du kenn ku mooy Ibrahima Diop l'observateur nag moo xëy di ñu wax naka lañ ko tegee loxo donte mairie bu diwaan ba ña ngi koy joxeñ baaraamu tuuma ne lu ji njaaga mooy njaag waaye moom nday mbili gi Ibrahima Diop lam def nangu na ko ne maa toj maa rajaxe fi kenn dootu fi futbalee ay nawet makkaan ak lu ma la mënta wax ndax fa dend ak barab bu sell ñenn ñi nekk ci yoonu murit fa ñoo ñaaw li ni mel ba tax les écoles yu nekk ay nee na dëkk bu sell ba Touba Mbàkke liñ bëgg mooy daar daar ci nu mu gën a gaawee nañ ko bàyyi ñeneen ñu ñu jàppoon ba bàyyi leen jëkkër ak jabar ya dëkk Allemagne ak ñaari doomu réewum Italie ci dorog bi ñu leen jàppee woon fii ci port bu Ndakaaru tey nag libération nee na ginnaaw bu ñu leen libéré bàyyi leen bàyyi mu négandiku tubaab yi demee seen réew de ayaw seetal seen passeport ya moo tax ñu ngi mel ni ay xoto yu ngiroo ci suñu réew mi mën a guñoo ñibbi ndax leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Idrissa Seck mooy njiital ku jegi chef de l'opposition ci Sénégal waxuma ko nag de nguuda mbuub xam-xam màcc ci wàllu politique moo ko wax le quotidien yéen a kaay yeggee ñu ko la mu ñu yeggee moom si du quotidien mooy dialogue politique bi tey ci talaata ji ci la ñuy xam nu wànnante du mujjee ak i gëtam rawatina lu jëm ci wàllu wote njiitum réew ci Sénégal ñu def ko bulletin unique maanaam benn këy rek nga xooste ka nga bëgg a woteel loolu moo gën ay bulletin yu bari yàq xaalis la nguur gi nag ñoom fa ñoo mel ne fa ñuy arbitré ci werante wi faneen fu werante xam diggante Seydou Gueye ak Ousmane Sonko ah yaaw seetal Seydou Gueye fa ñaaw lu taxawaay Ousmane Sonko xibaar yi muy joxe ak li muy wax ci pétrole bi na dara la ca xamul comme nag tontu du forox Ousmane Sonko tey réglé na teg na place jubbanti na Seydou Gueye na ko yaay ki xamul dara waaye man li may wax xam naa ko ndax yéen fa ngeen di jaawale janj ak joor kay jaawale poosam ak poosu kër gam jiite mooy njiital IPRES waxuma ko nag liggéeykat yaa ko wax doxalin bu ñaaw pasar pasare xalal ja teg leen coono bu ba tax tey ci l'évidence yi ne kaay ña ba wax ñu ko moom Soleil yéen a kaay mooy na fanweeri milliard ci suñu xaalis moom la nguur gi fas yéen a génne ngir taxaw téeméer ak juróom fukki junne ndaw tàggat yaram Ligue des champions jongante bu mag moo nar a xam tey ci ngoon Naples mooy dalal Liverpool ba tax record yéen a kaay na Kalidou Koulibaly tey mooy jéem a arrêté Sadio Mané ka ñu nar a boo muy tuut su génnee hôpital mooy Sayer Mbeng waa ji nga xam ne moo attaqué woon commissaire Diédhiou te ñu tiré ko bal ca tànk ñoom ñaar ñëpp nekk hôpital tey a kaay wax nañu xibaar yu bees ci yëf enquête nee na ñu sayar mbeng ci song buggoon a faat commissaire ba ñu ne àndut ak xelam maanaam fa manki docteur jaxate moo ko doon faj mës nañ ko enterré ñetti weer ca hôpital ba tax ay mbokkam ne kii bu ko kenn jàpp tëj ko kaso ndax foofu du place am nañ ko yóbbu hôpital ya ñuy fajee ñu seen xel wàññeeku waa ma ne foogu leen na loolu moo waroon a njëkk ñi seen xel manki ci askan wi la ñu bokk nañ leen taxaw faj leen waaye bu ñu leen bàyyi ñu génn kuñ fi rey di yaay perte de bàyyi nag bañ rey nit ñu naan ma moo manki woon xam nga ne loolu du jàmm de